mais ñu ñëw ci benn ñamali xëy na dañu war a jàpp yoon wara a génn génn bu ndaw ba tax na fooguma ne aaxiru zamaan bii di ñëw danañ ko mën a def konoon fa lañ koy yóbbu ca ñamali ga waaye ñu indi ko fii rekk waxtaan ci muy kàddu gu bàyyeekoo ci kilifa gu tedd kilifa gu baax di jàmbaar di ñayu xare ci liggéeyal sang bii ñu bëgg a waxtaane julli ci moom liggéeyal ko ci diineem ji ci yaral ko njaboot gu bari jàngalal ko njaboot gu bari tegal ko ci yoon njaboot gu bari muy sëriñ Moustapha Sy Al Maktoum li tax ñu doore ci kàddu yooyu noonu le mooy li ñu bëgg a wax waxuñu ko ngir soppeem bu ci bég waxuñu ko ngir wala soppeem bu ca am ñux ñuxi xol waxuñu ko ngir ku féete ca geneen wàll ga ku ci am féexu xol waaye dañ koy wax te jëmm borom asamaan ak suuf dong tax ñu di ko wax loolu waral ñu doore ci jaajëfal ko jaajëfal ko ak it reconnaître liggéey bu réy bi muy defal rasulullah ci diineem ji ndax léeg dana am kok dana bëgg léeg wax ci lenn walla ci kenn ca nam bëgg moom di ko ca waxee yow it mu bëgg boo cay wax nga waxee ca noona te fekk kooka du yow te yow doo kooka naam lu bari lu ma faral di wax ne man duma commande wala duma benn tele bu kenn yor commande di ma sape maanaam di di manipule di manipuler di xool lim bëgg a seetaan ak lim bëggul a seetaan lim bëgg a dégg ak lim bëggul a dégg man duma kooku yàgg naa ko wax yàgg naa waxit kenn du ne ma waxal ma ci lii ak waxal ci lii ak bul wax ci lii kenn du ne it waxoon nga ci diw waxal ci diw mii lii dana baax ma ubbee ko donte jaru ko woon waaye pour fàttali lay doon ndax nee naa am na yoo xam ne léegi jarul sax nekk di justifier di ko wax ne lii la de jarul muy bari l'essentiel mooy lu waay di wax na yàlla tax lu waay di jàpp na yàlla tax ku waay di àndal na yàlla tax su yàlla taxee danañu mën a dégg dëgg danañ ko mën a nangu danañu mën a bàyyi par parloo donte ku nekk far li waral wax ji mooy dafa am kàddu yoo xam ne nii yëgu bi muy jàll mais ginnaaw bi laa ko yëg mu wax ko ci ay yenant duma jaaraat ci kàddu yi ndax li am solo mooy du jëmmi répété kàddu yi mais wane ne wax ji wérut rekk ci am solo ba ci fi ci sama xam-xam toll ba keneen nag indil ma leneen lu weesu man sama xam ma mën a bàyyi la ma xamoon jàpp loola mooy yenent yi amu ci benn yenent bu toggoo ak mooy yàlla amul benn yenent bind naa ko sama page Facebook léegi ci ginnaaw laata émission bi ma ne bind nañ ko nag ci téere yi téere yiñ ko gën a bind mooy téere yi nga xam ni mooy téere nasoraan yi ci yi nu dugal ay mbir yu ca bokkul boo demee ci biir téere yooyu ngay fekk euh, ñuy tudd ay yenant nga ca téere yooyu ma wax na lépp loo gis ñu bind ko ca téere yooya na yenant sa ngam def na ko ci mooy yàlla wérut ku ko ci toxalit la nga wax wérut wérut dafa bokk ci kiriteeru yenant mooy day doon maasuum mooy koo xam ne yàlla moo koy protéger yàlla moo koy protéger ba yenn mooy yàlla yi munu cee tàbbi loolu dafa bokk ci critère u yenent képp koo dégg ñu ne la yenent la yàlla yónni ne ko ba ko yàlla yi laataay yónni daf ko sélectionné ca biir xeet wa mu nekkoon defar jikkoom defar ruuxam defar xolam ba mu mel ni yàlla bëgg mu soog di ko yónni ca nit ña dafa bokk nag ci kiriteeru yenent mooy du wax lu dul dëgg du trahir sunu borom subhaanahu wa taala waaye du toggoo yenn xeetu mooy yàlla yi du ko toggoo loolu moo wér ci téere lislaam yi ala kulli xaal léegi nag nekkul lépp lu nekk ci téere yi mam Cheikh Alxaaj Mal daf daan wax ne bu leen doon jaamu téere jaamu téere mooy luñ bind ci téere rek nga jël ko jàpp ne wér na waaye lu ci manti ba fii nu toll nii loolu mooy li ma gëm te mooy li ma jàng ba fi sama xam-xam yam leneen li ñuy wax ci yenent yi gis naa ci yu bari yàgg na ndax loolu du tey lañ ci nekkoon di ci gëstu ndax wax yu mel nii rek a taxoon ñu gëstu ci ba gis ne ndekete am na téere yu bari yu bind te li ëpp nag téere yu génn lislaam la yu ëpp ci wax yooyu téere yu génn lislaam la ba ci biir lislaam am na ci yennat yu mel noonu ci ay téere yu dugg yu yuñ dugal yu mel noonu mais biir téere lislaam yi dañoo delloo yenn wax yooyu yëpp weddi ko wane ne benn wax wéru ca te wax yooyu ñu wax ñoom mooy li wér mooy yenn bàkkaar yi ab yenent mënu koo toggoo am na ñenn ñu ne waaw mën naa am bu njëkk ba dagganoon na waa am na ñu dagganoon ci sariya yi jiitu woon waaye nag yenent buy def yenn bàkkaar yooyu noonu comme yi nu tudd moom xamuñu benn sharia boo xam ne ni daganoon na ab yenent di ko def euh, su ma duggoon ci biir fond mbir yi te bëgguma caa dugg danaa wax ba wax xisa bi nan lañ ko nettalee ci ku mel ne yenent yàlla nu wax ci ñaari doomam yu jigéen ñaari doomam yu jigéen luñ wax ne moom lañ ko def ba nangam ak nangam ak nangam juddoo ca ba nàngam ak nangam juddoo ca ñaawaayu wax ja moo tax sax rus naa di ca jaaraat gis nga rus gi ma rusee jaaraat ci wax yooyu noonu nekk ci biir téere yooyu noonu noonu laay rusee sax dégg ko wax wax jooju ma jël wax ji di ko partagé waat <laughs> wala di ca jaaraat na mu ko waxee waaye global wax ji rek laay dajale ne wax ji moom wérut wérut aji wax ji la mu wax am nay téere yu ko bind waaye ca téere laa daree ne dalee ne lañ ca bind wérut ka toxal wax ji ca téere yi tamit nettali ko wérut léegi nag foofu laa ca yem dama cee bind ma gis kenn ku bind ne li nga ci wax doyut <laughs> waaw li nga ci wax doyut bu ko diw sàngam waxoon nangam ak nangam ndeysaan fekk dolli naa ci la ma bind ca kaw ci beneen commentaire bu ma ci teg ne leen lu waaye di wax ak di def na yàlla tax bari na ku naan la waxal ci nàngam ji diw sàngam wax yàlla taxut yàlla taxul bari na ku naan la bul wax ci li diw sàngam mi wax yàlla taxul ñaari camp yi ku ci nekk ma woole ci ragal yàlla ki far ak ki wax ak ki farul ki wax ku ci nekk na xool la muy wax digganteem ak boroomam loolu nag moonu jafe ak mënoo jafe ñu ci bari mën naa cee boole sama bopp lu nuy wax am na ku ñu amal problème di xaar bis ba ci man mi wax ba ci man mi wax am na koo xam ne tey ci lu mel nii dana ci yëkkati kàddu ne doo ci dégg mukk maxtar saa ndax naa feq la mën naa tudd sama bopp noonu la may wooye booba ndax naa feq la li muy wax dara la ci gëmut waaw looloo tax doo ko dégg mukk mu wax ko ci lan moo tax moom ci saa si xamagul maxtaar saar ci lu mu nekk xamul dafa feebar xamul dafa tukki xamul yégagul xamul nangam mais moom ci saasa rek moom jël na position ne doo dégg mukk diw sàngam moom mu wax ci moom Makhtar Sarr ndax naa feq la Makhtar Sarr it ragal diw sàngam moom ne ko naa feq la tax mu ne xaaral man maay jug wan leen ne man maay gërëyee bi man maa ciy wax maxtaar saar buy wax ngir kooku ragalut yàlla kooku di wax ci Makhtar Sarr it ragalut yàlla te ñoom ñaar ñëpp dañoo war a ragal yàlla te moo yàgg leen a wax ne leen yenn yi kenn ci wax loo ndax da ciy wax yàlla taxul dèjà bi nga ci wax lu ndax lan mooy da nga ragal ñu ne la waxoo ci wala yow naa naafeq nga wala nangam ma tama leen kenn du ma manipuler ci yenn yi su ma demee ba gis ne maa ci war a wax sama conscience bopp sama diggante ak sama borom laa ci yëkkatee wax ku ci nekk nag mooy wax ci yow xam naa fu ma cay dooree ak fu ma ci am la ma wax ci x soo bëggee ma waxee ko noonu ci egg rek xamoo koy Maxtaar Sarr ndax man yàlla moo ma bindee du ma wax ci mbir ba noppi naan ah maa ngi jéggalu wax dëgg fa yàlla di tuub ndax ba ma ciy wax déedéet du dem ci émotion ndax lu may wax sama digganteeg borom sama digganteeg sunu borom laa cee jiital ba noppi avant ma Samba ak ma dem man 2006 ba léegi maa ngi nekk ci média di wax su ma xamul Sénégal ak kuréel yi fi nekk ku nekk sa idéologie ni ngay doxee man jaratul may wax. moo tax heure bu yenn yu mel nii xewee xam naa li nekk ci ginnaaw mbir yi su ma ciy wax xam naa lu may wax ca ka may wax ca fa ca yem ba nga xam ne manipulation yenn yi fekk na loolu mag naa ko bu yàgg di dem li am solo lépp du wax ji lii li am solo mooy sëriñ bu dul juum amul loolu il faut ñu génnee ko ci xel il faut ñu génnee ci xel yi ne diw sàngam lu mu wax am na aljawaadu xat yekk bu wa sayfu xat yan bu la arab yi wax ne fasu naaru góor day daw ba mu yàgg mu fa kasalu jaasi ji ngay dóoree mu dog léeg nga jël jaasi ji dóor la nga dóor du dagg kon nit lu mu màgg màgg lu xam-xamam bari bari mën na juum man nga jël benn wax ju nekk ci téere toxal ko boroom téere ba juum yóbbaale la ci njuumteem loolu ku nekk da koy rek reconnaître léegi nag mu des nag aji wax ji yow jàpp nga ca waxam ne lii mu wax wérul ndax fañ ko toxalee wérul léegi ndax day tax nga jël kooku noonu le wax wax jooju wérut nga sànni léppam Maxtaar Sarr nag moo du doon kooku nag aji wax ji laa wax Sëriñ Moustapha wax naa ko benn njabootam euh, Oustaz biraam xëy na tey laa ko njëkk a wax ci pénc te day baax lu mel nii ci jamono nga wax ko ci pénc doo bàyyi rek ñaanuñu ko yàlla xamuñu li yàllay dogal ba jamono nangam xew nga soog di ne ah man daan naa wax nangam mais occasion yu mel nii nga xam ne ku nekk léeg ci li lay profité déglu la baax na yow nga wax sa pas-pas ca kooka lu mu dama wax Oustaz Birama bis te yàgg naa ko wax fu mu nekkul moom mi may waxal Oustaz baa Bassine Diop vidéo bi dana ko seetaan du ñàkk wala émission bi ñoo bokk DTV di fa liggéey bis dama ne ko sëriñ Moustapha nit ñi xamuñu ko ci yàlla am na benn xeetu xam-xam bu tumuraanke bu ko yàlla dénk mooy firi firee alquran alquran nga xam ne day tibb ci aaya sàngam dem jëli aaya sàngam mu firi aaya boobu noonu leen mu tibb ma ne ko miraakulu yàlla la ci te loolu noonu le bu duggee ci domaine boobu noon le nga déglu ko ci en tant que doomu daara da ngay fi tasu bu jëree sar sax nga sar waa léegi kooku nga xam ne yow sa digganteeg sa boroom nga ko déggee muy wax téereem bi loolu nga bëgg ca xam-xam boobu yàlla may ko ci jekku alquranul karim mën a firee aaya aaya waaw nday dex ndax day tax ba jamono am benn masala moo dégg mu wax ca àndoo ca masala moo ma naw na jàpp nga ne masala ba wérul salon yow sa tolluwaay ak sa gëstu ndax day tax nga jël lépp loo mës a ci moom ci xam-xam nga jël ko sànni ko fële déedéet déedéet te kan moo lay bëgg a puus ci loolu mooy koo xam ne moom am na benn position bu mu jël ci par parloo ba ba mu chronique ci moom te ñaanagul yàlla mu denc moom man ba ci ku ma wuuteel maanaam ku ma bokkalul tariix bokkuma ak moom naanuwaay damay jéem a ragal yàlla ci wuute gi nu wuute ba ci léeg-léeg ñi nga xam ne ñooy gën a jooyal wax yooyu di ko yëkkati waxoon nga ci ustaad diw bi mu waxee nangam waxal ci diw ba may wax ci ustaad diw lu ci nekk am na baaraas bu ma teg attention ci diw mii laa yem ci waxam ji la wax waaye bu leen jaawale diw mii ak kuréel bi mu bokk ndax ñu baax a ci nekk ñu ragal yàlla tout le temps ku dul topp Maxtaar Sarr ni muy raisonné fi muy yëkkatee waxam fi mu koy tëralee lu dul da ngay cof ak ñu lay wax ngay déglu lu la neex man nga ko wax su boobaa waaye nag <laughs> kenn muccul kenn muccul waaye dañuy jéem ñun ba duñu dund ci ay pression ak i parparloo bakkan parce que boo amee kenn ku bokk ci samay kilifa wax benn wax bu waxuwul ndax te doomu aadama mën na ko mën na ko gaar wax jooju noonu le su ma xoolee gis ne wax ca am na njëriñ te lii pour ma wax ci nii dama jàpp ne wax ji lii am na njëriñ mais su ma gisoon ne wax ci amul benn benn njëriñ dama koy jël laf bu yeboo ñu saaga Maxtaar Sarr deram saraxe na ko bu yàgg kuy xeex ak faramason ki góor jigéen ragaloo ku la saaga ku la critiquer de loolu weesu nga ko mag nga loolu waaye soo gisee ne wax ji kat boo ci waxee amul njëriñ ndax am na leneen lu muy jur loo xam ne nii luy yàq la ca kanam ka luy defar keneen koo dégg mu wax ci doo taxaw ne yaa ngi jël défense ne waaw dangay ngay kooku noonu la ci wax jooju nga xam ne njuumte la kële lam ja wax ci moom waru ko wax ci moom <laughs> doo ko ma a dégg après léegi daal nit ki lii tax mu doon ko dëggu mooy faaw mu wax ci lu nekk yooyu ma mag yu mel noonu bu yàgg di dem man ma dëkk Sénégal <laughs> dafa am noo xam ne sa bëgguma ko ko waxee man ma dëkk Sénégal waaw xam li xew am na koo xam ne nii cinq mi ngi lay déglu di xaar benn fakkasalu ci yow cinq ndax yow mi ngi la mere meru dix ans di xaar man ma mag loolu toog am na koo xam ne xaarul lu dul benn bis bu mel nii mu soog di jóg nag ne leen gis ngeen Makhtar saar mii ngeen doon ngeen di wax nii nii la mel te gis nga leeral lu mel nii jaroon nañu indi wax ji nii wax ko